ginnaaw bi nga xam ne euh, jàpp nañ euh, suñu doom suñu jarbaat suñu rakk euh, Abdou fay ci circonstances yi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko ñu yóbbu ko commissariat centrale démb démb ñu annoncé ñu ne génn na àddina Euh, ñoom xëy na dinañ ci dellusi si euh, Fallou Faye muy rakk ci abdu Faye moo dem démb commissariat bu bu central di yóbbu ndékki ki nga xam ne mooy suñu mbokk Abdou Faye bi mu ko yóbbulee ndekki bi ñu jël ndekki bi Fallou Faye dem ginnaaw loolu ci la ñenn ci famille bi toog ci réseau sociaux yi gis ñu naan ki ñuy wax abdu Faye nekk commissariat central génn na àddina maanaam xamal leen ne du benn ci kilifa yi ku jël téléphone am woo famille bi le matin kenn ci njaboot bi yóbbul na ko ndékki ñu jël ndékki bi ñu toog ci réseaux sociaux yi gis benn xibaar ñenn ñi sax ñu ngi naan ban abdu la kii kay du suñu abdu ndekete suñu abdu la ñu woowante seen biir ñoom njaboot gi ba gis ne a ah, mel na ni de benn Abdou Faye moo nekkoon commissariat central ci la Fallou Faye googu ma doon wax sànq te nekk rak ci abdu Faye dellu ca post commissariat central bu ndakaaru ne leen man de damaa dégg ne damaa yëg xibaar bi te moonte de bi ma ñëwee indi si ndekki sànq kenn waxuma dara dañoo bëgg mbokk yi ak am di jàmm yi xamee ko noonu ne métit bi rey na naqar bi rey na waaye itam li xas ba am kay ah nañ ko wax famille bi nañ ko waxee tamit ci nu mu waree ndaxte comme ni ma ko waxee sa doom génn àddina réseaux sociaux yi yëg ko journalistes yi yëg ko yow mii di njaboot bi yëgoo ko lu dul nga yëgee ko ci mbedd bi ci réseau sociaux yi mbokk yi xam ngeen ne loolu métti na moo tax tamit il faut ñu interpeller état du Sénégal parce que façon yu mel nii bëri na dañ koy def ci yeneen domaine ngir yeneen objectif ñu ne garaawul da ngay gis ku déposer lettre am préfecture ne day marche moom mii ko déposé ci mbedd bi la koy yëgee état du Sénégal tàmm na lu mel noonu yéen journaliste xam ngeen li may wax journaliste yi ñooy jàllale xibaar bi ci rajo bi ñi déposé woon sax kenn waxagu leen dara xëy na sax loolu métti na waaye xëy na mën na jàll mais lii nag wax dëgg yàlla foog état du Sénégal xoolaat nu muy doxalee foog état du Sénégal xoolaat nu muy doxalee ndaxte xeetu doxalin bi ñaari métit la nit ki am métit ba pare ngay doxalee ak moom ci loo xam ne. amul respect ci loo xam ne amul égard ndaxte nit nag dañ koy jox cër rawatina ci lu mel ni génnub aadama génnub àddina doomu adama la moindre des choses mooy kilifa yi waroon nañ jël seen téléphone woo papay Abdou Faye woo mbokku du Faye pour yëgal leen xibaar bi balaay Sénégal di ko yëg donc loolu mooy déjà li nga xam ne mooy li ci njëkk meeting ñaareel bi Abdou Faye di turandoo ci ndem si yàlla Abdou Faye moom moo dem ca CTO parce que ñëpp mënuñu woon nekk fii euh, mu ngi fi jógee euh, euh, il y minutes ay booru midi wala booru une heure Abdou Faye dem commissariat central mu dem commissariat central pour gis kenn ku wax ak moom mbir mi métti te jafe ak commissariat central nu mu tollee ak turam fu mu egg mbokk yi dem pour mën a jàkkaarloo kenn mu wax leen lu leer mu am jafe-jafe ba ñu ne leen diwkat moo yore woon dossier bi lu fay di rakk ci abdu fay joxoñ Baye Abdou Faye turandoo ci ndem si yàlla Abdou Faye ne ko diw moo yoroon dossier bi abdu Faye di turandoo ci ndem si yàlla Abdou Faye dem ci kooku ne ko man de dama bëggoon waxtaan ak yow ngeen wax ma mbir mi lan la nu mu demee nu mu amee ak ñoom seen policier bi war na caabiwam ba sonn nee na gisul caabiwam donc mënu ko dalal ci bureau finalement mu dalal ko ci beneen bureau waxtaan bi matul sax cinq minutes waaw mu xamal ko ni ah dafa xaru waaw naka la demee dugg na fi génn na fi mu ne ko xanaa ñu xaar autopsie bi donc loolu itam ñu xamee ko noonu ne mënuñu jël ay doomu aadama tëj leen ba pare Euh, ndogal fekk si mbir moomu munoo wax ak njaboot gi munoo wax ak waajur yi munoo toog ak njaboot gi munoo toog ak waajur ci foog état du Sénégal xoolaat nu muy doxalee foog police sénégalaise xoolaat nu muy doxalee ñun nag yàgg nañ wax ne la police sénégalaise elle est damay fàttali ne ñun dañuy ràññale ñaar. police sénégalaise en tant qu'institution ak les policiers sénégalais ay policiers sénégalais yu jub ay policiers sénégalais yoo xam ne duñ la mës a yuuxu duñ la mës a saaga duñ la mës a gëdd bay dóor am na fi bëri na fi ñu ngi leen di jaajëfal di leen di féliciter di leen di encourager waaye dama ne la police sénégalaise en tant que qu'institution c'est une institution violente waxuma saaga yi waxuma dóor yi waxuma rey yi waaye déjà ni ñu doxalee ak njabootu Abdou Faye c'est de la violence kenn du doxalee nii yow nga téye doomu jàmbur nga téye jarbaatu jàmbur nga téye mag ak rakku jàmbur yàlla def mu génn àddina amoon nooy doxaleeg moom lu dul benn réseaux sociaux yi àddina bi yëpp yëg ko njaboot bi yëguñu ko c'est de la violence ñu naan déet d'accord ñuy ñëw pour indi ndekki waxoo leen dara xanaa kay du ci di du ci diggante ndekki bi ak xaw ma réseaux sociaux yi la affaire bi am kuy indi ndekki ay 7 heures du matin 8 heures du matin ngay indi ndekki waaw ñun ñi nga xam ne euh, dugg nañ ay yoon ay ay ay yoon ki yoon commissariat central xam nañ ne du 6 heures du matin la ndekki bi di ñëw donc ça veut dire que heure bi nga xam ne Fallou Faye indi na ndekki bi mbir mi amoon na ba pare parce que nag bu fekkee après la am ça veut dire que bu yóbboo ñu tas police sénégalaise jéem a tabaxaat beneen police parce que ce serait extrêmement grave bu fekkee mbir mi mu ngi am ay 7 heures du matin ay 8 heures du matin ay 9 heures du matin donc mënuñu gëm ne c'est pas heure boobu la am donc naka la nit mënee ñëw indi ndékki mbokkam ñu ko koy nëbb avant ndékki bi waroon nañ ko ko wax waroon nañ ko wax njaboot gi avant ndékki bi waxuma la nag mu ñëw indi ndékki te waxuñu ko ko mbir mi kon nii la demee ah boobu léegi nag Euh, nee nañ dañuy def autopsie xëy na fii ak euh, ay ay simili euh, wala xëy na sax jamono ji nga xam ne ñu ngi waxtaan xëy na bu ñu duggee ci réseau sociaux yi comme ni ñu ko tàmm di defee di nga ko fa gis au lieu ñu informer njaboot gi avant en fait ñuy informer réseau sociaux yi àddina si ak yeneen citoyens yi nga xam ne c'est de manière indirecte la ñu laalee ci mbir mi ñetti at ñeenti at a ngi ñun waa FRAPP ci cadre collectif pour la justice et contre les violences policières